fidèle téléspectateur de la DTV waxtu seen émission question de l'heure jot 5 sënkam delluwaat rek di len jaajëfal ci top bi ngeen di top programme seen chaîne de télévision la DTV rawatina nak seen émission question de l'heure gannaaw ba amalé amalee ay bés yo xamante dañ ci walu politique tay nak ñu soppi doxalin ñëw ci lenen lool sax moy ligne directrice li nga xamante moy émission question de l'heure manam di le lepp lo xam lu soxal askan la tay nak li ñu wara mom la ñu wala sax sixième art muy théâtre suñ waxé théâtre nak xam ngeen ne solo bu baax bu muy am ci askanu Sénégal du ci sori nak dalal nañu fi tamit ay kangam ño xamanteni ay acteurs principaux yi nga xamanteni ci walu théâtre la waye ba may sori ci waxtaan mi damay and ak avec la complicité de la régie ñu dem rek sétal li nga xamanteni ni am ci bëccëgu 27 mars bi nga xamanteni ni jot nañ ci célébrer journée mondiale du théâtre jërëjëf waa régie donc euh, nuñ ko delsee xam nga ni boo leen gisee élément bi nga xam ne tey ji liñ nar a waxtaane mooy théâtre loolu tax nag ñu dalal fii ñoo xamante ni ay acteurs ni ma leen ko doon waxee léegi ay acteurs principaux la ñu xamante ni ngi ci biiru xolu théâtre ñu ARCOS di kuréel gi nga xam ne mu lëkkale ñëpp ñoo xamante ni yëngalu ci wàllu théâtre monsieur Faye ñoo ngi lay nuyu ñoo lay euh, fay itam di rafetlu jataay bi war si nag mbirum théâtre voilà ñu lay jaajëfal suñu beneen invité di suñu doyen ci métier mi nekk fële nga xamante ni mooy RTS radio télévision sénégalaise Alioune Diop doyen ñu ngi lay nuyu. maa lay fay Massour euh, maa ngi nuyu <coughs> képp ku liggéey DTV di encouragé itam. voilà ñu lay jaajëfal doyen suñu beneen invité di Ibrahima mbay Soppe di artist metteur en scène monsieur euh, nu ñu ko waxee Ibrahima ñu lay nuyu. waaw Massour maa ngi lay nuyu di nuyu euh, mbokk yi ñuy seetaan yëpp di jiital aussi si nuyoo bi sama doyen bi fa fekk muy Pape Faye Euh, jiite ma lu bëree bëri ci wàllu terre ak ñi nga xamante ne aussi ay références lañu ma am plaisir franchement pour partager ak ñoom plateau bi voilà ñu lay jaajëfal Ibrahima suñu ñeenteel invité di suñu Natango moom tamit ñu ngi koy woowee Alassane Cissé di journaliste nekk conseiller en communication fële ca ministère de la culture Alassane ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi fay Mansour di nuyu ñi ma bokk plateau bi di nuyu téléspectateur DTV yëpp à travers le monde. voilà ñu lay jaajëfal Alassane xam ngeen ni euh, dimanche du ñu génn màggal nañu ci àdduna wërngal këpp li nga xamante mooy journée mondiale du théâtre suñu réew tamit desul ginnaaw am na ay manifestations yu ci dotoon am dañuy ànd ak suñu naataango Naby Guèye moom jot na dem teewee li nga xamante ni jot nañ ko màggalu journée mondiale du théâtre bu foofu dellusiwaat ci plateau bi. lii di théâtre ci réewu Sénégal mu ngi suulu di mbir moo xamante ne nag ñu bëri ci théâtre kat yi seetlu nañ ko. li ko waral moy xeetu théâtre yu bess yi juddu. théâtre fi Sénégal doxul doxul parce que dafa bari ay xëccoo xëccoo bi moy man may diw man ma nek fé man may li man may waxal may waxal artiste yépp alors que yow tu ne représente pas par exemple les tous les artistes. ku jog itam nek comédien itam koku moy problème bi. dafa melni que ñun dañu gën suñu mburu bu pare dagg dagg ko def ci ton ak soble yoyu yu neex yoyu dem ba kay ñu ne ko rokket suñu gémmiñ jox ko ñeneen. ñoom théâtre yi nag di ñaawlu ci beneen wàll ga ndimbal lu néew li nga xamante ne moom la ñu jagleel seen kuréel gi. ana fu ñu teg ñu jox 300 millions culture urbaine ñu annoncé ko. cinéma ñu jox ko un milliard et quelque ñu annoncé ko théâtre ñu koy jox 4 millions xel mënul nangu lu ni mel ñoom théâtre kat yi nag di woo képp kuy yëngu ci wàllu théâtre ngir ñu booloo ba mën a saafara seeni jafe-jafe ñun dañu war booloo booloo entité di waxandoo benn baat benn baat boobu ñu booloo ñu former xale yi wax ni dañu war a former xale yi te bu ñu leen former je que lépp loo gis da koy jàng amul métier boo xam ne kenn du ko jàng boo ko jàngul lu la neex nga ciy wax te boo ci waxee lu la neex yàq ko. ni ko àdduna bi yépp di defee Sénégal màggal na bëccëg gi ñu jagleel wàllu théâtre ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars muy nag prox ndool ci ñi nga xamante ne ñooy théâtre kat yi ngir ñu fàttaleku seeni naataangoo yi fiy jóge ak tamit ñi nga xam ne dañoo feebar ak ñiy dund jamono ji ak laago. voilà Abi Gaye ñu lay jaajëfal euh, Pape déjà depuis ma abord noo leen dundee seen journée mondiale bi. Content euh, rek parce que bés du 27 mars adduna bi yëpp du ko féete C'est ñi nga xamante ni dañ yëngatu ci wàllu théâtre euh, ñun ñu moom ko. yàlla dogal nag bi nga xamante ni ñu ngi ci waxtaan di def ay réunion avec la direction des arts wax dëgg yàlla ñu jàpp ci y nañ ci parce que mobiliser nañu ay auto ñu jël suñuy élément indi leen du dem Pikine def une grande caravane yenn fofu añee fofu def suñu spectacle vraiment euh, direction des arts à travers donc le ministère de la culture vraiment sur ce plan là def nañu li nga xamante ne war na mais ce qu'il faut reconnaître c'est que nous xam nga journée mondiale du théâtre du rek euh, càggaju da nga ñëw rek théâtre dem sa yoon waye xam nga jour bés la bo xamanteni bi bi euh, fokk ñu ciambar jafe-jafe yi nga xam mo ni ci biir artiste bi li muy dund li ko neex ak li ko naxari lolu mo waral bés bi jokk waaw ba taxna euh du mëna ñak nak euh ñu wax ci yi nga xamanteni euh mën tax ñu bekk ay nga xam tax ñu euh, lolu waaw donc Lola la amoon daal ci li wax di rafetlu itam ministre lui parce que nous na def vraiment présider la cérémonie officielle donc euh, buñ paree dugg ci salle bi Sorano def spectacle waaw de Lucie dem Pikine ngoon nga euh, ñi ñi ñi dem Grand Théâtre dem Grand Théâtre feete ko daal ba ci région yi tous les présidents arco de nekk région yi vraiment ñom dal kontaan nañu. def nañu spectacle bi ni mu wara dal ci bës bi. waaw Ibrahima yow no dundé bëccëg gi nga xamante mom lañ leen jaglale. waaw nek mbégte ci ñun ñep parce que d'habitude bon <clears throat> bés la boo xamante tous les comédiens sénégalais dañu dajaloo euh, def cérémonie officielle manam euh, Safanto aussi également mu nek occasion bo xamante aussi chaque année daf ñuy permettre non seulement ñu gisante mais ñu waxtaan suñu biir des mots du théâtre sénégalais parce que tamit comme ni ko grand bi waxee simplement mbégte rek ñeu jouer pour dem la preuve moy def nañ ci ay séminaire def nañ ci ay ay ay ay forum def nañ ci lu bari lo xamanténi ko waxtané nañ ko xol exactement qu'est-ce qui gravite autour mu nek lo xamanténi war nañ ko faj ci théâtre wax nañ ci walu subvention on a le financement on a le production on a diffusion on a la formation donc voilà, yooyu moo nekkoon li nga xamante ren solo ci li nga et je pense que ça a été un événement très suivi depuis Sorano jóge nañ dem Pékin, on est resté ensemble pratiquement à 19h 20h 20h et quelques. 22h 22h justement. pendant ce temps à partir de 21h aussi Grand Théâtre aussi à mon événement pour wax la que mm-hmm. dans tout le Sénégal donc ñepp théâtre nañ waxtaane nañ ko pourvu que nak lañ fa waxtaanee ak la nga xamanteni mom lañ fa def ci jour bobu mu mën a walu wàllu théâtre d'accord je pense que loolu mom moo am euh, solo voilà doyen yow mom duñ lo jox ko appréciation bi nga xamanteni mom le euh, artiste comédien yi wax né yow dañ bëggoon nga déssu watul ñu tout rek ci jeunesse li nga xamanteni moy mooy journée mondiale du théâtre wa journée mondiale du théâtre euh, lu ñu célébrer ay ati ati ñi nii mhm. ay dizaines d'années euh aduna bi yëpp diko célébrer euh lak yëpp di ko célébrer état yëpp di ko célébrer Sénégal di dëkk bo xamné dafa jox gëdd euh, art ak culture mënul won euh, démarqué wu ci célébration boobu euh, at bu jot ñu célébrer ko mais ci sama yaakaar célébration wu ren bi amna lu particulier parce que am ay décision yu am solo yu génn xëy dinañ si ñëw yoo xam ministre bi euh, annoncé nako lu melni ay subvention ay prix du chef de l'État ak terre scolaire bi ñu wara soxali euh artistes yi joxe seen xalat itam ci décision boobu nga décision yooyu nga xam état jël nako euh mu nekk débat responsable débat responsable man loolu cette Lorraine ren euh, dama ne soo xoolee bu baax entre euh, tutelle bi ak artistes débat bu responsable la ku nekk joxe nga sa ensuite média culture yi soutenir nañu euh, journée bi jox nañu kàddu ñu wax corps de métier pour wax nañu bo traitement euh, médias yi retombées de presse corps de métier pour wax nañu euh dinañ évaluation parce que si wara dem une euh journée mondiale du théâtre il faut ñu xol li ñu passé mm. lu am moy li soppé wax légui rek motax ren di euh, dafa melni pour man célébration bu particulière la waaw hmm. si ambiance bi ma gis atmosphère bi ma gis dal vraiment def nañu lepp ci démocratie quoi d'accord célébration bu particulière Alassane mi nga xamanteni mom journaliste la bu weesoo loolu tamit euh, nek conseil en communication nek ci ministère de la culture célébration bu particulière xamna né taxawayu peut-être ministère de la culture bokk na ci lu waral mu nek particularité bobu voilà amna particularité euh, c'est la journée des des des artistes comédiens des acteurs du théâtre qu'ils soient metteurs en scène comédiens et euh, techniciens dramaturges hein, ak ak et que nous tamit dañ koy au Sénégal en général dañuy célébrer le journée mondiale du théâtre le journée mondiale de la musique fête de la musique le journée mondiale euh, de la danse 29 avril journée mondiale fête de la musique 21 juin moment la journée mondiale du théâtre 27 euh, mars est décidé par l'UNESCO comme nous le dit Diop moment yoo le moment de communion un moment de réflexion le, moment de diagnostic le moment de force de proposition entre l'institution et les acteurs euh, du théâtre et que comme nous l'avons dit, à ak Pape Faye ak euh, Ibrahim Mbaye am solo ñoom ak ministère bi jaxasoo nañu élaboré programme ministère bi gunge ñoom it ñu def ci seen pas-pas pas-pas def si uñ si ñoom it acteurs yi seen seen alal pour ñu am une belle journée mondiale du théâtre yemul rek Dakar xëy na télévision yi Dakar la ñu la la la ñu bari extra mais Sénégal bi yëpp chaque région ak centre culturel régionaux ak acteurs du théâtre yi. fépp am nañu manifestation am nañu manifestation. comme Nico Ibrahim Ibrahima waxee aussi ay table ronde ñun ñi weccante seen xalaat am na ay décisions amna ay subventions yu ñu annoncé amna na aussi théâtre scolaire bi nga xamné ah mo moo moo moo jàngal euh, nuñ koy suqalaate. Mhm. ak théâtre populaire bi. ndaxte gis nañu aussi théâtre populaire bi dafa féete surtout euh, ministère de la jeunesse mais tamit xol nuñ koy. gunge jàppale gën a jàppale ñoom Youssou Margane Margane Mbaye et surtout formation bi comme ni ko Ibrahima Mbaye génnee dafa am solo parce que sinon ñëpp mënuñu nekk artiste comédien parce que ñëpp amuñu talent lu seen nañu Sénégal aussi ku am def rek nga naan da ngay nekk artiste comédien. tax xam naa Alassane loolu dinañ dugg sax. buñ gën a yaatalee xool tey jii jafe-jafe yi nga xamante ni moo mooy lompañal métier boobu dinañ ci dugg. waaye tamit xam ngeen ni journée bi biñ koy célébrer ki nga xam ne mooy jëwriñ ji yor wàllu culture teewoon na fa moom nag am na décision yu yoo xam ne jot na ko fa yëkkati ndax euh, bu ma juumul wax jàpp na ni juróom-ñaar yoo xam ne dañ ko ci war a investir lii nga xamante ne mooy ñeenti million yi ñu war a jox association des artistes et comédiens du théâtre sénégalais dafa mel ni moo fa xaw jur li nga xam ne mooy coow dañuy dem rek au niveau de la régie dem cadre du ministre de la culture Mbagnick Ndiaye. célébré ay atti at ñu koy def ah gouvernement président Makissal, Sall li fait. ci def ren dinañ len jox ben subvention de 4 millions. pour association bi am siège am pour mieux fonctionner am fu len di contacter ensuite euh, joxe 1 million à l'inspection d'académie pour que nous relancer le théâtre hein, au niveau de l'école élémentaire. J'ai aussi 1 million 500 à l'inspection d'académie de Kaolack pour que ñu def la même chose loolu li tax ñu jublu ci mooy dañoo bëgg rek théâtre bi ah ci avons yu ndaw yi ñu commencé ko ci xale comme nous l'avons fait avant l'indépendance et ak temps yi Léopold Sédar Senghor bu le président de la République signé un ñaari décret benn décret bi un décret bu appliqué. Hein? la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins loi que bi ñu ko jëlee ak war na at décret d'application président de la République il faut un décret d'application je crois que le bénéfice loi boobu euh, dina permettre acteurs véritablement ñu am comme euh, ensuite nous y un décret un décret qui a créé créer la société hein, des droits d'auteur et des droits voisins Abi Gaye ñu lay le euh, euh, Pape. ay décision yi am solo la yëkkati nañ ko ngir dundalaat li nga xam mooy théâtre ci Sénégal. waaw loolu dëgg la le la boo xamante ni ñun qu'elle koy rafetlu parce que déjà xam nga euh, le ministre a parlé de du test scolaire. Mhm. jàppale ko par le biais de l'ARCOT la si je me souviens bien. ak national donc à direction des arts à travers une subvention 10 euh, ah, millions et quelques sous forme de compétition. Ça c'est bien c'est comme d'ailleurs c'est un peu le rappel du festival interscolaire de théâtre qu'on appelle le FIST. Mm-hmm. on a on a on a on a fait ça donc euh, donc y des ci gens ci lu mel non c'est nouveau, c'est du des gens c'est nouveau mais dañu puisque, comme d'autant plus que comme Nationale, il y national des ci eh bien, des de théâtre au niveau des établissements scolaires et même au niveau des établissements universitaires. C'est une très bonne chose. Et en Banenbi, il a parlé de la subvention nationale, de la subvention de l'orchestre, de, de national à hauteur de 4 millions. Mhm. Parce qu'effectivement, bon, il a dit que, euh, bon, ce frais de fonctionnement, là, accès à Yoyo. Waouh, ça c'est bien. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a 4 millions. Hmm? Eh, donc partager les différents arcos qui sont ci Sénégal Mais ñu parce que chaque région a au moins chaque région a un ARCO tes régions yi dañu am ay ay ay y a des arcos départementales mhm. aujourd'hui beaucoup de jël <laughs> partager enfin connaître d'ailleurs mais c'est c'est donner une idée hein arco 200 200 francs donc mhm. nga donc loolu mënul régler problème xam bon mais dañu ne loolu c'est pour le fonctionnement peut-être du bureau national alors si coow li nekk mooy que ni ñun la ñuy wax ñun. waaw dafa mel ni da ngeen ko xeeb su ma su ma jumul. ah da ngeen ko xeeb. waaw parce que li si laay ñëw mhm. li nga xamante wax naa ko léegi xel mënu ko nangu c'est que quand on voit aujourd'hui c'est kooku defe naa ñëpp dëgg nañ ko ci presse bi da nga ma 300 millions yuy jël yuy jox euh, subventionné culture urbaine un milliard et quelques yu le cinéma le théâtre warul am lu toll noonu fofu le li te li ni du euh, rek la ko wax ko chaîne de télévision aussi le hein? mm-hmm. euh, problème parce que da un milliard et quelques le cinéma. mais xam nga paradoxe paradoxe Sénégal. Euh, en majorité li théâtre cinéma est ce que une euh, façon astuce. pour gagner doublement. on a dit le théâtre on a dit le théâtre le cinéma. Hein, la culture urbaine, la musique, etc. Ce n'est pas la même chose. Parce que ni subventionné au cinéma, c'est n'est pas, pas l'artiste comédien. Hein. Hein? c'est des réalisateurs c'est des producteurs ah effectivement nous, nous sommes les comédiens ñu dem jouer dans ces film mais nous, nous, Ibrahim wax léegi une session de formation à l'UNIDEF. parce qu'on a un projet on a un projet énorme qui s'appelle euh, euh, projet de, formation croisée donc dans toutes les régions et départements du Sénégal cela veut dire quoi Nous avons un euh, et des experts comme Ibrahim, comme ñeneen ak ñeneen dégg former et formateur bu les leen pour bu pare dañ leen di euh, dispatcher dans les régions qui nga ma kii bu demee Kaolack bu deux semaines après ñu dem Saint-Louis ainsi de suite waa à Saint-Louis dem fu mel euh, euh, Dakar ainsi de suite c'est ça qu'on appelle la formation croisée alors loolu dañu dañu en termes de financement mhm. mais c'était de l'argent mais à de parce qu'aujourd'hui, là où je vous parle ma du bu ko nationale un franc nofa bon quand je dis un franc nofa mhm. mais ça veut dire que y a 100 francs francs il fa nekk nous devons dañu bëgg liggéey loolu d'ailleurs dañu noonu appel de fonds pour nous appeler. parce que et itam ministère de la culture il n'y a pas dana joxe parce que il parce que faut pas que les gens pensent que dugg na duggul ah. ah différence loo xamante ni mais xam solennellement la que jël ci kanamu nit yi. ak mais duggagul. parce que li ñu laaj nii depuis 2012. moi je ne man ma je ne pas depuis 2012 la ARCOS nationale gëj a am subvention ministre yi fi jaar yëpp dem nañ ci ñoom wax ak mais sortons. Il y' a que ministre Mbagnick Ndiaye y' a un an dans son bureau hein, avec les membres de l'ARCO il a la une décision que dana subventionner à hauteur de 3 millions Bon, il y bon a le na.

ma fu interview sax damay nuyu ñi ci plateau bi nuyu waa Sénégal di nuyu bu baax sama xarit euh, Pape Faye Mbaye Soppe Alassane ak euh, Alioune ak yow présentateur bi di leen félicité tamit ci seen journée bi nga xam ni mi ngi amoon barkaati démb di journée mondiale de théâtre nga xam ni seen taxawaay rafet na gis nañu ñu taxaw nañu ci état beeg ñoom ñëpp dama ci rek ci mbirum. Mhm. voilà mbirum euh, euh, théâtre Sénégal ndax xam nga théâtre dafa am rôle bu mu doom joué ci société ndax dafa mel ni dafay jël société bi comme théâtre bi ñuy def di comme seetu nga xam ne dafay wane société bi ni muy doxee ak faay Dakar yi wan nit ñi lu nga xam ni moom la war a taxawee donc kon loolu éducation morale la donc ci kaw loolu parce que théâtre bi lañ ko jàppee lu nga xam ni rek comique bi lañ koy gën a lañ koy gën a jëmale alors que kooku benn rek la parce que volet divertissement la mais soo jëlee rôle bi nga xam ne moom lañ ko war a jox ci ni dëkk bi tëddee mooy rôlu éducation rôlu véhicule culture bi ba nga xam ne dañu war a nécessité dafa war a tax dañu war a gën ko professionnaliser maanaam su fekkee ni jamono dafay dox théâtre bi aussi dafa war a dox parce que seet nañu théâtre bi dafa doxoon ba agsi fii dafa war a gën a dox donc dañu war a former nit ñi ba nga xam ni jamono fi mu tollool dinañu mën a percevoir message yi di véhiculer ay message donc ñu dellu si waat ci cosaanu théâtre nga xam ni théâtre mooy am lieu am espace am jeu am am ay spectateurs am aussi ñu nga xam ñoom mais pas comme ni ko comme ay téléfilm du théâtre dans le sens pur du terme donc fi toll ni li talentueux talentueux nañu nit ñi aussi bëgg nañu théâtre am ay espace yi nga d'expression fu ñu euh, jouer théâtre la donc man je pense que li ñuy war rek mooy fexe gën a gëstuwaat nan lañ ko war a suqalee ba état bi fan la leen war a jàppalee ak moyens nécessaires pour que théâtre bi delluwaat. Euh, monsieur le ministre. Euh, wax nga nan la ñu mën a xool ba nga xamante ni état mën leen a jàppale ba ñu gën a suqali théâtre yow dégg nga léegi kàddu yi ki nga xamante ni mooy Pape Faye mu ni depuis 2012 ba léegi jotuñu subvention yow bi nga fi nekk sa jamono sa subvention noo loon doon jàppale sa jàppale ci fan la tolloon. xam nga subvention tout lu nga xam ne ñoom moom la ñuy soxla parce que geste la bu nga xam ne rek léegi lañ koy def rek ñu utiliser ko mais dafa war a nekk lu nga xam ni dañ ci war a dañ ci war a fexe ñoom ba ñuy dund ci seen métier parce que métier la ci métier dafa nekk lu nga xam ne dafay dundal nit ki di faj ay soxlaam foofu la ñuy war a xool parce que bu suñ ko jëlee côté divertissement bi rek dañuy kii ak yooyu loolu la ñuy war a teg de côté xam ni kii métier la dafa méngoog jamono ñu war ko ñuy def dem ci ay école de formation di faj jàng di am ay diplôme di def théâtre langue française Euh, langue euh, langue euh, ci théâtre sénégalais en langue française ak yeneen yi di ko mun a di ko war a exporter man je pense que aussi taxawaay bi war nañ ko xoolaat ba nga xam ni vraiment ñu mën a dund ci seen métier. voilà monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal. merci bien merci beaucoup. Euh, may fàttali suñu bokku téléspectateurs yi que ni ñoom tamit mën nañoo bokk ci émission yi saa yu leen soobee rek ci bu ñu au 88 628 08 80 de doyen dag may may rek ma dem xool euh, hmm, Ibrahim, Ibrahima par rapport ak ce euh, cadre yi ki nga xam ne président ARCO national est-ce que yaakaar nga ni subvention bi ngeen jot mën a leen jariñ dara. waaw d'abord man comme ni ko Pape Ndike wax damay d'abord saluer présence ministre bi ci ci cérémonie parce que tamit. Euh, dafa tomber pag la aussi dimanche là donc képp koo xamante ni ñëngu foofu jour boobu je pense que théâtre ñor na la mais lolo waree fam la def on ne peut que le remercier si lolo bon man peut-être ben ben peut-être man m'a comprendre peut-être le vrai sens de acte bobu ministre bi def xaj mais bi Pape waxee légui am lu gëna a leer suma suma suma suma bop quoi moy le président de la République doxna 1 un milliard le cinéma euh, jox na les rappeurs 300 millions D'accord mais man ci sama xel bu gàtt ñoom xanaa euh, du am lu mour seen beut bañu wara war a jox di cité ay 4 millions man mënuma xalat loolu ministre bi mo japp né peut-être ARCO lay jàppale à 4 millions D'accord ARCO c'est une association bo xamanteni parmi tant d'autres associations yu bokk théâtre ARCO ci loolu la bokk il faut reconnaître que aussi nak ARCO dafa daj Sénégal yépp nak macha dans toutes les régions il y fa ay branches qui xamante ni boo doon compter membre ARCO des milliers de personnes donc du association bu donc moi je veux dire que par rapport à li Pape wax du ma jàpp ne ministère le président de la république dafa dire 1 milliard pour nangam jël 300 millions pour rapport parce que si jii nag le théâtre. quest jox ce théâtre quest Je veux man j'ose dire ici que le président de la république joxul 300 millions pour moi je peux dire bu ko mhm duñ ko jël man loolu wax personnellement mais je pense que aussi bu fekkee ministre bi dafa ni pas Faye par exemple ak Arco mën na leen aider à valeur de 4 millions peut-être lu ñuy saluer la mais nag par rapport ak aussi conditions yi pas wax 4 millions xaj na boo ko bëggee séddale euh, ci 10 régions yi day metti et puis fonctionnement la bo xamanteni bo boo ci loué ben local bo ci jëndé ben ordinateur <laughs> bo ci foo ci fayee courant ak ndox fay da fay jeex donc peut être ce qu'il faut saluer mooy geste bi mais nak bu ko mënee yok wax deug yalla parce que ARCO aussi nek na association bo xamanteni machallah à travers ARCO mën nañ fa jógee tabax lenen ak lenen mais man lu gën ñor pour man en ce moment moy théâtre da fo a commencé di waxando benn baat mm-hmm. manam ñëpp dajalo mu nek benn kuréel comme aussi rapport yi def nañ ko dem am lolu cinéma def dem am loolu ñun tay ji même bu Arco moy moy moy piloté mais ñu ci trou théâtre je pense que dinañ gëna am doole boba nak ku ñu jox millions wala 99 millions bu ñu nexé ñu taxaw non ko jël parce que suñu nawlé la ñu nekkal ñun ay comédiens lañ ñun duñu xastaate duñu duñu clash parce que dama gis né que aussi ñun dañu xaw pacifique trop dal on collabore lu gën gëna gëna gëna bëri parce que ñun loolu lañu xam d'accord

mais si. vous ne pas pas appeler non association si pour son fonctionnement même suñu avons 100 000 mais appelez la mon ami Pa actuellement association ARCOS un franc à mouf. une association mais c'est des cotisations c'est des membres qui ont décidé de créer une association donc doivent cotiser s'il y a un franc ce n'est pas un reproche à ceux qui n'ont pas créé l'association. Ben, association de la presse culturelle En 1997, nous en une subvention, am subvention un fonctionnement hein. à part 500 000 francs en 99 euh, du ministre Khan, il y a d'autres associations qui ont une subvention kaddu mais a une une subvention et chaque année il crée un festival international de théâtre forum il y a d'autres associations. L'autre élément, euh, les 4 millions pour AdCords, c'est un appui au fonctionnement. Ça n'a rien à voir avec les productions d'un milliard du cinéma. Ça, c'est des productions. Déjà, il y a 32 films qui sont en train d'être tournés. C'est de la production. Ça n'a rien à voir avec l'annonce des 300 millions de, culture, urbaine. Pape a dit 4 euh, millions nous avons ni que dañ ko et insiste sur les 300 millions de culture urbaine mais l'autre annonce la annonce la euh, am donc non warul amalgame entre un appui fonctionnement d'une association et, et une subvention de projet de production waaw foofu dañ bëgg ñu taxaw fofu tout rek ñu léral benn mbir euh, buñ déglu pap ci limu wax ci benn côté est-ce que mën ñu ko nangul tamit ci ci benn wall tay ji buñ jëlé ax ko ak démembrement yi mu am au niveau national tay ji est-ce que yaakaar nga ni bu dé fonctionnement lañuy wax 4 millions mën leen jarin dara attends ndax tay ji bu ma ko jëlee ci ci ci ci benn ci benn image rek ci bo fay nga bo xam nang ko baxal ba mu bax nga ñëw def fa ndox yaakaar nga ni fofu dafa Sénégal nañu nañu nañu nañu éviter la culture de l'assistanat. C'est-à-dire, quand on crée une association, c'est une association privée. Si on te donne une, subvention de 4 millions, bon, chaque région, chaque qui extra et, et, tout, mais quand on peut-être c'est comme la la la euh, couverture maladie universelle après débat nous ñu ne extra nous dara du c'est-à-dire qu'une association comment ça fonctionne On na euh, appui de l'État mon na appui des privés mon na appui des ONG des partenaires sociaux c'est comme ça qu'on développe une association je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses j'insiste sur ce point-là peut-être pour éviter que mu am amalgame c'est-à-dire les 4 millions c'est un fonctionnement là c'est-à-dire que nous, ñiy une association bi yenn saa ñooy passé seen bopp ñuy téléphoné ñuy dem ñuy kii mais loolu c'est c'est appui fonctionnement Là. ça n'a rien à voir. voilà c'est-à-dire que. mais aussi ah. Alassane euh, je peux je peux. y parce que aussi baal maa si dagg bi hein, Alassane. parce que ah, avec plaisir c'est quelqu'un qui nous souvent. avec plaisir mais mais tamit euh, il faut c'est vrai wax ne bu pas am amalgame mais tamit dañu dans ci société boo xamante le Sénégal il faut le reconnaître ah. la culture a été toujours considéré comme le parent pauvre. Mhm. D'accord Budget au ministère de la Culture. Je vous parle à témoin. Oui. Amul benen budget bu mu égalel. Oui. Yépp de raw parce que simplement on nous dit tout le temps que culture amul khalis wala du dugal khalis. À partir de ce moment où le ministère amul budget bi wara am a jàppale ni mu nit ñi mais il faut comprendre aussi que le théâtre doit être subventionné à Alassane parce que tey jii noonu damay àggale rek ñi koy def ñëpp

donc le comédien des fois il est pris par une telle urgence sociale pour man que que le ministère de la culture. Non, a une politique. Hein, de développement une politique qui xamante dina subventionner yenn association yi pour man dina baax seulement waw góor rek lañ a wax non je je suis d'accord avec les Il nga ci waaw góor rek wax mais pour man dama gis ne. yaakaar nga ni war nañoo mën def. bu ko doon bu ñu ça peut être intéressant. Ibrahim, mm. waaw production mm. théâtrale dafa war a am continue de la mission du théâtre. Le théâtre est un instrument d'éducation. Oh. Le théâtre est un instrument pédagogique. Si nous voulons relancer le théâtre scolaire, c'est pédagogique. Nous sommes tous élèves, tout tant que théâtre motax suñu timidité wañ théâtre motax théâtre, le théâtre motax ñuy mëna le leçon théâtre motax ñuy am ce que Obama parle aujourd'hui de l'audace. Tu vois, donc production, c'est important l'autre élément en dehors de euh, ministre bii mais après, na sax si festival bi une association mhm. quand il est ministre de la culture il a beaucoup appuyé euh, le théâtre appuyé na Arcos banlieue ak Yenen comédiens maintenant pour te dire ce Ibrahim le budget du ministère de la culture c'est moins 2 du budget national c'est 14 milliards 357 millions. est-ce que ah, c'est 14 milliards par rapport à 000 milliards. c'est important que Ibrahim Mbaye souligne ça c'est important que les acteurs culturels prennent conscience de ça mais malheureusement c'est pas le Sénégal dans beaucoup de pays en Afrique dans beaucoup de pays dans les Caraïbes les budgets des ministères de la culture qui doivent accompagner les dynamiques culturelles

formation wala. Euh, waaw euh, war nañ jappalé le théâtre euh, sénégalais euh à travers des subventions mais buy am day fekk ñu dajalé corps de métier yépp corps de métier yépp nak ci théâtre waxandoo ci ben baat mbay soppé wax na ko sax ñu je crois que lolu dina nek argument bu valable pour ñu mëna wax ak interlocuteur bi nga xamné moy moy état ensuite le budget ministère de la culture il y a 2 ci milliards budget budget ni Euh, ba faible Alsane mu ngi wax Caraïbes ak Afrique mais même dans les pays occidentaux euh, le budget ministère de non ah comme ni ko nit ñi di pratiquement culture partout dans le monde presque presque. sorte euh, à tort à tort. Euh, buñ ko fulalul euh, parce que fu melni ni Sénégal dañuy wax way amu leen suivi amu leen amu leen euh, ay études et cetera pour sukkandiku ci lolu pour gëlemal ñu pour mëna mëna mëna expliquer pourquoi subventionné wuñu mais li nga xam moy 4 millions yi nga xam jox nañ ko ARCO mhm. man man ci sama gis-gis à distance